نصر من الله وفتح خريب وبشر المؤمنين برم نصر الله دين جاي محمد محمد صلى الله عليه وسلم لنا الإيمان والإسلام وآسن الإحسان داما مدى لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإخزان باخ داما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen sama xariti bopp yi sama wëllëre yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di siyaara fu ngeen mën a nekk partout dans monde di ñaan suñu borom bi tabaraku taala mu defal leen jami aduna gu and ak kattan am xel yu leer yu ñuy xalaatee xalaat yu rafet te am cër yu sawar yu ñuy jaamoo suñu borom te may nu nag kattan ci kaw kattan ci suuf ak ban mën a jëf lu baax ñoo ngi del si tey ginnaaw bu nu noppee ci téere yi nga xam ni ñoo wacc asamaani juróom-ñaar ñëw ci suuf si suñ borom jox ko ay yonent ñu andil lu ko jot naa la wax mboolem anbiya yi nga xam solo na leen mu war ñu war noo gindi mat nañu téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent cent vingt quatre mille anbiya waaye mboolem yonent yi nga xam ne ñoom ñoo am sañ-sañu waare waaraate tànt ci mbedd mi dem ci jàkka yi ñëw ci kër yi pour dajeel teg la ci yoon 313 ñetti téeméer ak fukk ak ñett la ci biir 313 yi ma wax la ne téere bi di alxuraan ñaar fukk ak juróom la ci tudd ñaar fukk ak juróom la fi seen tournée yeneen yonent yi si nekk yi ci yëpp seen tur nekkul ci alquranul karim borom bi def leen a junj rek wax ko yonent bi ne ko wa minhum man xasas na alayka waaye wa minhum man lam naxsus dana la wax histoire yu ñenn ñi nga xam ko fi ma jaar ak ñoom waaye am na ñoo xam ni c'est pas jarul ma la ko wax ndax mënoo koo xam motax xam ñëpp yomb waye ñak leen a xam du gàcce ndax rasulaay sax sallallahu salaam wasallam neena ko am na luma la neub waye ci biir ñaar fuk ak juróom yi alxuraan tudd ak ñetti témer ko ak ñett yi ak témer junni ak ñaar fuk ak ñent so dajalee ñëpp juroom juroom ñoy ñi nga xam ni ñoo ci ëpp daraja ñoo ci ëpp daraja rafihu darajati solars يلخروه من يسعى ليسعى أما وانتقاما يلا مو يكف درجة أدنى درجات سول وما أوى فساد motax tay mi ngi lay ñëwal ci yonent yooyu comme jox na la téere yi ngi lay yow sama xarit soxna distribuer na ma téere yi seddaleel na ma ko waaye yow tam maa ngi lay laaj kan ak kan ngay jox ci yonent yi ku ci nekk ci ñoom ñaata téere nga koy jox pourtant ci nga bokk de ci laaj bi mais tontoo goo ma ci nga bokk de yow mi tata yow mi mama yow mi papa ci nga bokk عجبني عما عوى انتقاما buñ la laajee téere yi yonent yi nga xam ne alxuraan tudd na leen xaadim nee na imaanukum dafa war ngeen gëm bi rusli ci yonent yi gëm yonent yi tasdiixu mooy dëggal bihim ci ñoom yow julit bi yonent yépp nga war a yemale amul benn boo ci war a mën a gëm weddi ba ca des yàlla nee na bu ko def alxuraan sax nee na la musaddiqan li ma bayna yadayhi da nga war a dëggal ñëpp ba noppi gëm lañ yor julit amul weddi yonti yàlla Iisaa amul droit weddi ko da war a gëm que moo moo moo nekk jiitu chrétien yi warta tax nga sañ ko weddi julit amul sañ-sañu weddi yonti yàlla Ibrahim dafa war a gëm ni yonente la bu yàlla yónni ci noonu lu mu wax mu baax jëfe ko julit amul droit weddi yonti yàlla Muusa ولا يعقوب ولا داوود ولا كوما لا دون سي نيوم جوليت داف كو ورا گم بروف بي موي يونس تبي عليه الصلاه والسلام نينا امن الرسول القران بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل نيوم دي امن بالله ورسوله وكتبه ورسله واخ لول wal mboole mboolem way gëm yi kulun ñoom ñëpp dañu war a gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi kon amoo droit weddi kenn moo tax da ngay fekk ci kër jullit bi mu gëm yonte yàlla mat alayhi salaatu wasalaam ba pare waaye tudde yonte yàlla Iisaa doom am doom ju tudd Iisaa nga dem ci kër jullit bi fekk mu gëm yonti yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba pare fekk mu tudde yonti yàlla Moosa doom di woo doomam Moosa nga dem ci kër jullit bi fekk mu gëm yonti yàlla Muhammad alayhi ba pare tudde yonti yàlla Ibrahima doom bari na Ibrahima yaa ngi ci kër jullit yi jullit am na Yaxuba jullit am na Daawuda jullit am na Idrissa beneen yonent bu mu mën a doon ci kaw suuf boo demee ci moom doo fekk turu Muhammad wala turu jullit yi ci seen biir yonent bi képp mooy moo yaat moo yaat moo large yonent yëpp mu accepté leen wax waa këram ñu leen tudde ay doom yonent bi sax alayhi salaatu wa salaam amoon na doom ju tudde Ibrahima tudde ko yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam alayhi noonu la mel yow mi di jullit amuloo droit bañ kenn ku baax amuloo droit. fi ne julit bo xasee tuddu julit ni mu bëgge xaadimu rasulillah julit non la wara a mam maam malik si julit non la wara a cheikhna ahmed na sharif julit non la wara a bëgge abdul khadir Jilani. Manam yow dal julit nga amo droit bañ ben julit waxuma sax gaay yu bax yoy de mais sa mbokk julit mi ka dekkandul ci kër gi kep mu tuddu fatou nga tuddu nogay boko sa julit wërut إلى سواي مكره دواما julit mu soppee boppam loola loola sariya wax yaa ngi dégg borom Tuubaa naa la ci téeram bu tedd boobu li anna kulla wirdin yuridul murida li hadaratillahi walan yahida sawahun li ahmad tijaani wala boog li abdu xaadir jeylaani aw li siwahuma min al ndax lan fa kulluhum yuridul murida li hadaratillahi walan yahida xadimul mustafa nee na borom Tuubaa wird bu mën a jàpp ci kaw suuf du werdu du werdu tijaan werdu laayen salsaliyu imaamu saafiyu wu mu mën a doon ci kaw suuf ba ci besam nee na day yóbbu taalibe ba mu toog ci plafond ci kër suñ borom tabaraka taala ci salon yàlla garaate ko wird woo jàpp te bàyyi woo ko mu yóbbule ci yàlla borom Tuubaa nee na wird yëpp laa wax woo ci jàpp te ba woo ko te jël sart ba na mu ko war a defee nga defe ko nag teg sa tànk fi nga ko war a teg ci farata yàlla ak sunas Muhammad yow tijaan nga yow xaatir nga yow laayeen nga yow murit nga yow ñaseen nga yow lo meuna doon neena bo bayiwul da nga dem ba jox yalla sa borom loxo khadim rasul neena din wa bi munada ama wa وحب man به munada ama masalan boy jaamu yàlla di ko commencé alxames ajjuma samedi dimanche dañ koy boleke bu len de ci ngoon ñu ubbi ko xol su fekkente ne denceloo kenn rankiné amul eñ amul amul en bo jappalit amul ben salusi jaamu gi yalla nangu ko courrier bi passé ngay jaamu yalla lundi mardi mercredi ba sodi dañ koy boleke sodi ci ngone lañ koy xol ni Fatou mii de li mu jaamu baax na parce que xolam bi set na te dencalul kenn xaar ma yàlla bàyyil courrier bi jàll ci suñu borom ko taala su fekkee diggante ñaari bis yooyu nag am na koo xam da nga koo mere te muy dëgg yéene ko musiba bu la nuyoo doo ko fay bu la tuddee doo ko tudd bu waxee yow doo waxee yow ba noppi da ngay jaamu yàlla ci diineem gi suñ borom la demal nga régler sa diggante ak sama jaam bi ba noppi dog maa andil man awuma problème ak yow ëllëg ku tardé sa morom moo la tardeel kon amul droit bañ kenn bàyyi leen ko xel ki bon sax ñaanal ko mu baax ki bon ki bon sax ñaanal ko mu baax waaye bëgg ko yéene waxuma nag ku baax nga bëgg ko bon loo yàlla na ci yàlla musal min sari hasidi sansara foo fekk ku baax soppal foo fekk ku bon yërëmal te ñaanal ko yàlla mu génn ca mbon ga maa ngi lay wax ni la bon ni mu bone ki bon tey def lu bon moom mi bon sax bëggut a bon bu sañoon baax ndax lu nit bon bon bon bon bon ba xam ne moom bon na ñëpp xam ne bon na boo ko nee yaa bon mu kon kenn bëggut a yàlla na nu yàlla baaxal ajabani mbokk mba dem te ñoo ñooy eggale ko kon bind baa ngi ñëw da ngeen a war a gëm yonent yi dëggal leen gëm bi maa la nga xam ne jaa dikke nañ ko bii ci moom mi rab yi mu jële ko seen borom su nga waaru su diglee nga def su teree nga bayyi taxani amul droit digle mom yonent amul droit tere lu lu ko yalla wax ni ko wax ko gaa waye amul droit lo nit lu ko yalla wax ni ko bayyi ko kon lu yonent wax dañ ko wara a gëm dañ ko wara jafé yonent yépp wa annahum yonent yajibu war na fi xaqihim ci seen àq dafa am loo xam ne droit la plein droit ci yonent mu dund ko mooy lan ñett yi ma lay wax jàpp ko for force yonent da ko war a am ñetti yi bu dul yonent nag mën nga koo manqué ñu ñëw jéem laa jàppale ba nga batal ko mais yonent ñett yi daf koy judduwaale daf koy am képp ku la ni yonent la nga fekk ci nga seet ñett yi fekk ci benn manqué ca du yonent ba ci jëkk mooy ak seet xu mooy dëggu dëggu dafa waroon ne nitu dëgg lu metti metti metti boo waxee dëgg la la war a wax ngeen baal ma baat bi ngeen baal ma ko yonent du fen du fen xam naa nag ma naa kan moo war a fen fen warul kenn ñëpp la bon ci ñoom araam ci ñoom mais yonent degare araamu fenam dafa ëpp doole keneen yonent du fen am na ci yonent yoo xam ne biñ ko defee mooy tax bu ëllëgee duñ mën a ràmm te pourtant seen loolee ñu wax nga xam ne du dëgg lu woyof la xam nga yonent yàlla Ibrahim dafa am soxna su rafet muy yaay yonent yàlla Ismaayil soxnaam andil ko problème aw mu genn kërëm and ak ñaarelam dafa aventurier pour genn dem bo mi ngi jëm ci makka rombu benn dëkk boo xam ne buur ba fa nekk dafa am doole dictature la comme alal ju bari mu nangu ko ku am soxna su rafet mu nangu ko bi Ibrahima dugg ci dëkk bi alayhi salaam ànd ak soxnam sosu daf ko neub ci bir gal gi waye boy jall frontière da ngay fekk douane yi taxaw gendarme yi taxaw ñu vérifier Ibrahim fekk soxna ci biir fim ko mur ñu genné ko ne ko li lan la mu ni sama sœur la bu ma àndal sama jabar la da fekk soxnam la ndax bu re sama soxna la dañ koy nangu kon pour mu génn ci mu ni sama sœur la boo xam ni dañ ma damay tukki ñu boole ma ak moom pour ne naa ko yóbbu mu nuy jiwee juróom kon yóbbante la waaye moom ma ko comme moom ma ko nag sañ ma koo joxe yóbbante la wax jooju mu wax ni soxna si du sama soxna dañ ma ko yóbbante sama sœur la ci la ko yàlla kolee motif moom te walaay xam nga loolu waaye waaye sañu ko daa waroon wax sama jabar la parce que soxnaam la waaye ñi mu ni sama soxna la ndax ko nañ koy nangu ci saase suñ borom ne ko lu tax ngay wax lu dëgg maa ngi koy jégalu ak ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen xam nga bu doon muudu moom day waat ci sëñ bi waat ci ma sàmba ni sax ànduma ak moom fa xaw ma ko pour bëgg a génn ci waaye su yonent sañu ko bay war a day wax li am kon si sidxu yonent dafa war a dëggu waa wa amaanatun dafa war a wóor ba loo ko dénk boo ñëwee mu ne yaa ko dénk yonent sañul nga dénk ko sa poset mille francs nekk ci nga ñëw dégg ko laaj mu ne ah bàyyi naa ko kër ga de waaye mille francs ngi nii non non non non mille francs ko joxoon moom la lay joxaat yonent sañul xuloog soxnaam ne ko wàcc naa la mu dem del siwaat tagalu maquillage romb la ngan ko wàccuma la wax nga lu loolu dëgg ñu dem kaw dikk suuf nga waat ci yàlla ne wàccuma la yonent sañu ko bu ko xasee wax da ko war a def yonent daal dafa war a nekk wóor koo xam ne loo ko dénk mu dénkoo ko te boo ko soxlaa mu jox la ko ak ban wa tablixum jotal mission bi ñu leen yónni jotal ko yonent sañun wax leneen lu dul bu ko suñ borom nee demal ci président de la république wax ak moom dëgg da koy wax yonent te yonent kenn mënu koo ger yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga jéem nañ koo geer ba tey pour mu bàyyi li muy wax ni ko boo bëggee ci femme yi ñu may la nga seet xale bu ci bu fi gën a rafet loolu dara dara gel la ko jox la ko wax nañ ko yonent bi boo bëggee xaalis ñu jox la malet te nga bàyyi li ngay wax yow rasulillah sallallahu alayhi wa sallam soo bëggee terrain ñu daggal la te nga bàyyi li ngay wax yow rasulillah sallallahu alayhi wa sallam soo bëggee ci mbubb yu foor yi ñu jox la te nga bàyyi li ngay wax yow yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni leen la nasalaka risqan yàlla nee na nahnu narsuquka wal xaaqibatu lil muttaqin ndeysaan déggal jooju wax man kenn mun maa korom yonte yàlla suleymaan soxna su baax soosu di balxiis yónnee na ko ay cadeau yu bari bu doon léegi ay milliards la boole kook ay jaam nee nañ ma ko joxal fekk Souleymane da ko wax ni ko nga jub te jaamu yàlla te jaamuloo ko nit ñi mu ni dem leen seetal ma ko ndax li wax dëgg la bu fekkee alal dong la bëgg maa dal ci kawam su dee yàllaa ko yónni nag ñu ànd ak moom ndeysaan innahu min Souleymane wa innahu bismillahi rahmani rahim leetar baa ngay dem ca moom ba ñu andee cadeau yi Souleymane delloo ne ko na téye lii maa ko ëppule taxumaa jóg yàlla nee na nañoo ñu ànd ala taxlu alaya watul muslimin nañoo ñu ànd jaamu suñu borom tabaraka wa taala ah yàlla na yàlla teg ci yoon bu dee kilifa diine goo xam ni saa yoo ko tabaxalee kër loo waxati mu ni gongo soo ko joxee malet loo waxati mu ni gongo yow boo soo ko daggalee terrain loo waxati mu ni looloy dëgg su takkee soxna su rafet bu bu ko dee trahir mu trahir su boobaa boo ko toppee bu ngeen jëmee kër yàlla it du ngeen weesu fuuf yàlla nañ yàlla dimbali ba musal ci loolu kilifa diine dafa war a diiñ diine yàlla rek ñor ko muy wax taalibe dëgg di wax buuru àdduna dëgg te bañ a ragal dara ci la muy wax imam malik mii buuru àdduna dóor na ko ba ba summi ay loxoom imam malik sëriñ la ci sëriñ Tuubaa sëriñ la ci imam Alaaji Malik sëriñ la ci Seex naa Ahmad Tijaan Sërif waaye buur dóor na ko ba summi loxo ya ngir wax wax buur dëgg ab sëriñ mooy kàddu jaamu yàlla yi bu buur juumee moo ko war a wax ni ko du noonu yërëmal ñii dégg ngeen ko sëñ Abdou Lahat yàlla na yàlla dolli leeram ba muy wax Senghor ni ko nangam ga nga réew bi buñ bu buñ la santee benn yoon yow war nga leen sant fukki yoon ndax doo am ñoole ko jox waxoon na ko président Diouf mi kilifa day wax deug del wax deug sa peuple te dee leen yërëm ñoom de da nañ wax lolu lolu nak la wax watam di xum ñu wara jotal kon deggu dafa war ab yonent yonent warta na fiq wuur ba ba ñi mala denk alal dafa war ab yonent deggu dafa war ab yonent ben wuur ba nit ñi ñeme laa dénk ñeme laa wax seen secret dafa war ab yonent te buñ la ko waxee doo ko sennal te bu la laajee xalaat nga wax ko lu rafet du ko lu lor te doo ci am benn intérêt dul jëmm yàlla ab yonent daa war a mel noonu waaye dafa war di jotal mission bi ko yàlla yónni mu di ko wax ñetti dëggu wóor ak jotal buñ la laajee lan la yonent jomb lan yonent jombu na koo def da ko jombu dafa araam ci moom waru koo def ku ko def do yenent moy ban wal kasibu fen ngeen balma janggalela, la yonent du fen xiyaanatun yonente bu wor trahir nit dor martu ngir beug ko jariño bo noppé wor ko ci souf wax ko lo xamne ne na li ngay wax du deug dang ko beug jariño bo jariñoo ne soxna si na fekk dang ko beug waye bu muy beug ko jariño rek ngir sa bànneex boo demee ci xarit ne ko nañ ànd dem bu muy war yoo xam ne bëgg boo génnee jaay ko bur toog mukk mbooloo wër la nga jay buur ngir malet bu mu lay jox wala leneen bur wor kiit maanu nëbbu dëgg yonent du ko def li xew bu xewee buñ ko laajee la xew lay wax noo mën a mel boo jàddee boo ñëwee mu la jàdd nga yonent da daan wax fekk ku ab moykatu yàlla mu ne ko da ngay te yàlla tere na ko fekk naankatu sàngara mu ne ko yàlla tere na ko am njaalookat mu ne ko yàlla tere na ko nam ko ko teree yonent noonu la koy bàyyee du ko def mukk kon du nëbbu dëgg du wor du fen moom yonent ñett yii ma la wax araamaha araamal na ko alayhim ci ñoom kan adayaanu yàlla mi nga xam ne mooy fay jëf lu waay jëf bu ëllëgee yàlla dana ko fay kon booy boo xam looy jëf ay lu mu namm ci kasibu xitmaanu xitmaanu fen wor ak nëbbu dëgg ak lu mu namm ci asetxu amaanatu wa tablixum dëggu ak wóol ak wóor ak jotal nee na istihaalati lu ñu jombale la ajamihu mboolem ajami mbooloo mi firisu conent yi dañoo jomb loolu te gor sax da ko war a jomb fen jum de mënta ñàkk waaye waat ci yàlla ko yonentam ni du nii te fekk noona la te yow mi koy xam nga du dëgg toog sosot sab nawle sos goo xam ni fu mu jaar dut fa baax te du dëgg nga ànd yaag moom jëf nga waat ni bokkuma ca te fekk ca nga bokk fen dafa aram rambaaj na nga yiis da yàq kër yàlla neena ab rambaaj ku mënta fa wëñ def gileem gileem def ko ci bën bëtu bën bënu puso mënoo ko tabal àjjana laa yadxul janat annamaamu dam ñoo xam ne rambaaj piir lañu fu nu fekk diggante yàqu fu waxe dëkk bi tas te li wax dara amu ca jiñ nit lu bon ba jaratul dankum buum tax koo génn ab dëkkam te li nga wax amut baaxut xaramaha aramal na alaykum dayaanu yàlla suñu borom kon fa ku nekkal yow mii may dégg su ma waxatee tur yonent mu saleen na julli alayhim ci ñoom yaa rajul yow waa ji wala yow soxna si su ma waxatee rek rusulu alayhim mboolem yonent yi neel alayhim salaam su ma waxee mboolem yonent yi rek neel alayhim salaam xamoo ni sa doom sax boo ko wooyee mu tudd Mohamed boo ne Mohamed ba noppi donte sa doom la neel alayhi salaam Mohamed nga ni sallallahu alayhi wa sallam ma ne Heesa nga ne alayhi salaam su ma ne Ibrahima neel alayhi salaam suñ tuddee yonent rek jullil ci moom fa kun musalliyan alayhim yaa rajul sëñ Tuubaa dafa am ay teggin nee na wormaal ñu yàlla wormaal bind baa ngi kon nañ gëm yonent yi dëggal leen gëm téere yi ñuy andi xam ni dëgg wóor jotal dafa war ab yonent bañ a fen bañ wor te bum na bu dëgg dafa war ab yonent yal na yàlla mi nga xam ne mooy fay fay leen ñoom yonent bandama beugel gu sax tak la beug yoronte bi ma ngi beug yalla man khadim rasul ba beug ku beug yalla yow mi may diglu beugal yalla kep ku beug yalla beug ko so bëggee yalla beug la bul bañ mukk ku beug yalla bu ko bañ bu ko jëw nahrun min wa fatun kharibun wa basrul muminina borom nasrullahi diina jaa